ñuy euh, dalal tey ancien coach bu euh, club Casa Sport euh, ak DTN directeur technique bu bu bu équipe bi bu club bi ñu lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di nuyu leen fay. Mm, voilà tey ñu bëggoon a xam ban jàngat justement ngay def gannaaw nag ba Casa Sport ñu sacré ko ci championnat bi. waaw xam nga ñun dañu wéeru ci championnat bale passé buñ jóge pour mun a pare championnat bu ñu boobu bi pour gagner bi waaw di mm-hmm. nga championnat daaw bi mu jeexe ñu oo xale yëpp toog réunion bala bala ñuy tàggatoo ak ñoom bala ñuy bala bala ñibbi ñu paree ne championnat bi jàllee dañuy dem vacance pour ñu dellu si at jël si tambal saison bi ñu ne leen xool leen championnat bi man leen xool leen championnat bi ma ne leen ban rang ngeen ñu ne ma ñu xool ñu ne cinquième ñu ne cinquième place bi mm-hmm. ma ne leen juróomeeli place bi mais jëlee naa ñeenti équipe yu nekk seen kanam yëpp mais kenn gañew leen. man ne leen man ne leen ñeent ñu nekk seen kanam yëpp kenn gañ kenn rek moo leen gañe. Mm-hmm. mooy Tëngéej moo xam ne ki moom mooy champion te daf leen gañe Tëngéej ngeen gañe ko Ziguinchor. Mm-hmm. Tëngéej daf leen gañe Tëngéej ngeen gañe ko Ziguinchor mais yeneen ñette yële kenn gañew leen ma ne xool leen loolu ma ne leen ba pare yéen a ngi def yéen a ngi am fukki match nul ak juróom mm-hmm. ma ne leen fukki match nul a juróom su ngeen si amoon juróom-ñett rek nee na que champion jël leen ko ngeen boole ko si ma ne da ngeen nekk champion du Sénégal ñu taxaw di xool ne ma ne xool leen rek ma ne xam nga li tax ma wax leen nii. Mhm. parce que xool leen rek mbir mi nu mu demee. Mhm. ma ne su ngeen ko defoon rek ñu ma ne kon championnat bu ñu ñëw dem nii waaw foog ñu def ndànk foog ñu def ndànk ànd ak dal wàññi match ñu ni xool ni ñuy def ba pare gën a gañi ay match. loolu si raison yu tax xale yi ñu gën a ñaax xale léegi bu ñu demee ba ba ba buñ tàmbalee championnat bi bu ñu demee ba bi jeex. ñu ne leen bon aller bi jeex ñu ne leen aller bi a ngi ñoo jeex ay ñaar ñetti match moo des pour championnat aller bi jeex mhm. ñu ne leen championnat aller bi bu jeexee suñu bokkul ci podium bi rek du ñu mën a nekk champion mhm. maanaam ñetti pass yu ñu jiitu premier deuxième troisième benn ñaar ñett suñu occupé wul ñett yooyu rek ñu nekk champion dafay jafe trop foog ñu xeex xeex yu métti mhm. te loolu ci xeex yi moom day métti waaw mais championnat bu mu jeex ñu nekk podium ñu ne ah kon affaire baa ngi si nañ dem Mhm. ñu song retour bi muy retour bu ñëwee ba ci digg ñu ne taxaw leen ñu taxaw ma ne leen ah dafa am li ma leen bëgg a wax. Mhm. dama leen di léebal déglu leen ma baax gune yi waaw ñu ne ma ah. <laughs> ma ne leen gis nga mbir football waaw mhm. ma ñaari yëf dong laa gëm laaj leen ma lan ñu ne ma lan <laughs> ma ne leen liggéey ak chiffre ak statistique seetlu seetlu ñu ne ma ah waaw ñu ma ah waaw ma ne leen xool leen baax. ma ne leen Casa Sport Casa Sport. 2011 dafa gañe coupe du Sénégal. Mm-hmm. ñu ne ma waaw ma ne leen 2012 mu jël championnat bi waaw mm-hmm. ma ne leen temps yi Casa Sport 2021. dafa gagné coupe du Sénégal. kon 2022. su ngeen gañewul championnat bi si yéen la parce que dafa am ñaari chiffre un ak yoo xam ne ki Casa rek la ñu mm-hmm. un deux. Mm-hmm. et fois ñu ngi takk verse verse verse verse comme yéen seen équipe ñun ñuy reetaan mën leen eh xam ngeen mën leen yéegal mag yi waxoon naa ko moo gën mag yi xamoon naa ko. ne leen maam yi soo gisee ñu daan ay seetlu la ñu mënoon waaw ma ne la nag il faut ngeen bay xel si loolu ren su ngeen jëlu championnat bi mm-hmm. si yéen Hmm, d'accord yéen la waaw. Euh, loolu laa leen mënoon nga leen yedd euh, xam nga mënoon naa ne rek xam nga waaye ma bay ma ne non wax ni loolu ma ne leen gis nga un ak boobu ñu ngi takk verse verse verse verse. Uh-huh. léegi yéen su ngeen su deful lu war rek seen affaire la 2011 dañu jël coupe du Sénégal 2012 ñu jël championnat 2021 dañu jël. coupe du Sénégal. Mm. kon deux mille vingt deux dañu war a championnat. <laughs> lépp a takk vert vert comme seen équipe comme ñun. <laughs> su ngeen ko jëlul yéen la su ngeen ko jëlul kenn dox dara yéen la. parce que fu mu nekk nii fu mu nekk nii kenn nga ñëw leen benn defet rek ngeen am équipe yu am nañ defet yéen <laughs> am nañ leen defet xool leen rek. ñu ne waaw ma ne ok acca nañ dem. mu dellu si waat ci seen loxo coupe bi. waaw euh, gannaaw nag fukki at. Euh, euh, lan moo soppeeku bu weesoo li ngeen nii lan moo soppeeku lan moo def différence ak yeneen saison yi. waaw waaw xam nga xam nga am na génération dorée bu fi woon ñooñu gagné woon coupe bi. gagné championnat bi gagné coupe la ligue bi gagné lépp la équipe boobu dafa dem ba à un xam nga joueur dafa day day day dem day yéeg day dem ba ci kaw ba pare nag Euh, léegi ñooñu nekk ay professionnels dem équipe bi euh, libéré jaay leen yóbbu leen en Europe ñu dem ñoom ñëpp. Mm-hmm. au bi def lu mu daan def. Mm-hmm. jël ay xale jël temps liggéey ñu ne non non affaire yi foofu lañ ko bëgg a téye rek de gañu ko ne ko gañu ko ñu dem ko du dem ñu toog ñu ne ah mbir mi daal nañ jël suñu temps daal def ndànk liggéey. Mm-hmm. waaw dañu delluwaat fu nu ñu xamoon nu daan def. liggéey à la base ñëwaat yéeg suñuy xale keen ñu dem loolu lañ def. ñu ngi ni ñëw nañu. waaw gis nañ ne am ngeen ay internationaux euh, comme yi tey ndax li ni mel am na lu mu yokkal xale yi. am na ji nga ji nga boobu bu ñu ooyee faat ji ji nga d'ailleurs sax moo daf leen am na lu mu yokkal xale yi. parce que ñeneen ñi Euh, ñu ngi ñëfe-ñëfe yoo xam ne ki parce que ay junior lañu ci équipe bi ay ay cadet hmm. oh, am nañu ci oo équipe nationale cadette am nañu ci oo équipe nationale junior hmm. am nañu ci oo équipe nationale locale hmm. te loolu bu ñu ooyee Badara rek Aliou Badara rek ah ñeneen ñi ma ne gis ngeen ah Aliou Badara dem na de fu mu nekk ni moom gars yi moom ñu ngi leen di seetlu fi moom euh, euh, ñax a njëriñu rek moo fi na waaw ma ne fu mu nekk nii moom football bi daal loolu la waaw ñax a njëriñu waaw ñu ay Aliou dafa motiver ñeneen ñi dafa am lu mu def sax si équipe. Mhm. ñëpp waaw ñu ngi rek cadet euh, junior ak équipe locale. loolu daal mhm. loolu la def ci équipe bi loolu def ci équipe. ku def lu rëy am lu rëy euh, du ñàkk di ngeen féete li nga xam ne moom mooy coupe bi week bi euh, lu ñuy xaar ci boobu la fête justement. waaw xam nga Gota Gota League football League professionnelle yëpp. Mhm. parce que football pro Ziguinchor lay tëjee saison parce que. Euh, fédération mooy tëj saison bi ak coupe du Sénégal. Mhm. mais Ligue Pro ñoom Ziguinchor la ñuy tëjee euh, week-end bi gota bi ñëpp ñëpp ñëpp Ligue Pro yëpp ay ñëw Ziguinchor euh, ñëw ak seen i bagage lépp ñëw seen coupe seen médaille jox ko trophée bi Casa gars yi festival Casa tam am lu mu organiser foofu ci terrain bi mhm. en tout cas daal carnaval lay doon fête bu mag lay doon parce que lu tax fête bu mag lay parce ñaari équipe muy Casa muy Guédiawaye kenn amu ci pression. Mhm. donc fête bi daal lu luy neex la daal luy neex la daal. mais mhm. bi daal grande fête lay nekk daal ak fair play bu mag a mag a mag ak ambiance bu mag a mag a ngeen doon champion euh, ligue bi euh, déwén nag Afrique euh, di ñu représenté ci ci ci wàllum football bi saison bi nan ngeen ko fas yéene aborder justement. mais mais gis nga nag affaire bi nag foofu la foofu la métier nag. ci nan Afrique mm. yombul. Afrique yombul xam naa li may Afrique yombul dem naa fi ak xam nga Afrique yombul parce que ñun euh, heureusement léegi ñi nga Sénégal lu ñuy sonal suñu calendrier démarrage saison bi duñ ko duñ duñ ko wékk si calendrier international. waaw daanaka équipe yi dañuy démarrer saison ñun démarrer gu ñu nga war a tase équipe boo xam ne ki am na dix match championnat si am yow amuloo dara nga ne ngay qualifié mais doo qualifié. Mm-hmm. dafay métti daf loolu daf ñu yàgg sonal. mais mais mais gis naa temps yi nag gars ñu ngi aligné wu ci calendrier international yi ba pare am na beneen affaire encore lu sonal équipe Sénégal yi. équipe bu jël champion. équipe bu jël champion du dem mukk coupe d'Afrique ak ak même groupement ak même équipement. équipe bi dafay changer complètement waaw loolu tamit jafe-jafe la ndax yéen ñi waajal ngeen ci seen bopp non non mais jafe-jafe la mais loolu foog mu ngeen seen bopp ci mbir moomu sax waaw waaw mais mais xaw parce que xale yooyu xale bon dafa dañ dafa am ay gars yu ciblé ay pour ñu nekk professionnel mais seen avenir la la équipe bi di xool ne leen ak jaay joueurs yi dem leen daa dañ leen daan seen doole bitim réew Europe ak yooyu loolu foog mu am parce que intérêt xale la ñuy xool du ñu xool intérêt équipe bi waaw loolu nag dafay sonal ñi xoolal xoolal xoolal daaw daaw ji xoolal daaw ji mm-hmm, mm-hmm. bu bu Covid bi amee xam nga bu Covid bi amee kenn jaayul joueur benn joueur mënul dem mm-hmm. jaraaf champ jaraaf ak ak ak ak euh, génération foot dañ dem Coupe d'Afrique ak seen même groupe mais xaw nañu rey gars yi. Mhm. Euh, jàlluñu ñooñu saa saa gars yi toroxal gars yi waa yow. gars yi ni ki football Sénégal bi non c' parce que équipe yi nekk champion yu waay dem duñu dem Coupe d'Afrique bi ak ak ak même effectif bi. Mhm. loolu moo ñuy sonal loolu donc dama yàgg a wax ni gars yi su ngeen fi Afrique gars yi dàquñu football. gënuñu c' est que rek dañu gën a organiser ba pare gënuñu motiver loolu donc ñu nag ñeneen ñoo leen mun fépp si valeur si si xeex su fekkee ñefe la. Mm. waaye ñoom dañu gën a ba pare match yu si jeexee ñoom lu ñuy def seen poche euh, moo ëpp ñoom ñu lu ñuy def seen poche donc ñoom mm. jaral na leen lu bëri. d'accord waaw mooy motivation lu gars yi di wax. coach yàgg nga gunge équipe bi. parce que yoroon nga ko nga doon seen. coach tey nga doon seen directeur technique. yan mooy jafe-jafe yu club boobu nekk ci bët saalum réew mi di gën a dund. <laughs> mais xam nga xam nga xam nga. tubaab yi dañuy ne ni kii xaw ma euh, euh, tubaab yi ne ni kii on tire les gens par le cou ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun daanaka euh, suñu suñu suñu jaable bi amul que dañu xëcc jeen bi ba nga xam ni ki jeen bi bu deeku na waaw xam nga lu suñu problème ñun distance ñun Casa douze mille kilomètres la ñuy def la ñuy def par saison su fekkee compagnie sucrière newul première division douze mille kilomètres maanaam équivalent Dakar Tokyo la par avion. Casa douze mille kilomètres lay def par saison équivalent Dakar Tokyo la par avion. Mhm. su fekkee compagnie sucrière ne permet bi ñëw su fa nekk bul xam ñaata kilomètres la de de de ëpp la dix neuf su fa mais douze mille la ñuy mhm. te loolu ñun ñun donc Casa ñun Sénégal fii mooy équipe boo xam ne kii da ngay walli maanaam dem fubal yi. Mhm. da ngay walli après match bi doo doo doo egg le toutes les équipes yëpp amul benn équipe fii. saa yu joué match am rek match sur la fin guddi këram lay fanaan. Mhm. ndegam fanaan ñun donc Casa ñoo joué match match bi jeex ñu desaat Dakar. Mhm. ba ëllëg ba pare ñun suñu waree joué Dakar dimanche. Mhm. déglu de. vendredi lañ fi quitté añ reer ndékki. ñu egg samedi añ reer ndékki dimanche jour match bi añ reer ndékki lundi. ndekki añ parce que dañuy waaw xoolal loolu loolu mais mais mais loolu loolu poche bu koy génnee ba pare ba pare suñu subventionné équipe yi. Mhm. du ñu def discrimination positive. dañu ne mooy équipe première division yëpp dañ leen jox ku nekk euh, cinq cent mille ou bien trois millions. Mhm. suñu ne équipe première division bu nekk cinq cent mille lañ lay jox. Mhm. ñu joxe ko mais nga jox jaraaf cinq cent mille. nga jox Casa cinq cent mille. mais jaraaf su dem jaraaf. dafay jouer dimanche. Mm-hmm. kan lay recevoir wa Pikine. Mm-hmm. dimanche bu ñëw Gorée moo koy recevoir. Mm-hmm. beneen dimanche bi kan la Guédiawaye. beneen dimanche bi kan la Tengéej beneen dimanche mais mais mais mais Casa dimanche si ngeen soor. fan lay dem. Saint-Louis mu dellu si. dimanche fan lay dem Louga. mais benn man cinq cent mille argent mais kon ñu def di suñu joxe subvention aux équipes là. Mhm. dafa mu am discrimination loolu il y a plus de dix ans maa ngi koy mais kenn du ma fay mais heureusement président de la république xam naa xool na seet na mu may ñaari bus may ñu bus dafa njëkk ma benn bus. Mhm. mayaat ñu bus climatisé. Mhm. mais président de la république. bu mu joxee bus dafa pour mu wàññi suñu transport yi suñu distance suñu def suñu course yi loolu la président de gars yi ne non c'est pas tout normal président de la république Sénégal la pourquoi muy may Casa bay ñeneen ñi ñëpp la war a jox bus mais arrêtez arrêtez mais mais mais xoolal ñun lu ñuy def rek si distance xam na soo soo ñu yëremul sax nga ne ñu mas soo ñu yëremul si distance nga ne ñu mas ne ñu waaw góor mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais Laye Diaw nee na ni ki premier premier mi si yoon bi la koy def heureusement léegi y a le pont Gambien là y a le pont de Gambie. kenn du taxaw mais bu forage ñoom xam nañu euh, mais arrêté. <laughs> voilà le problème il faut yi mu am discrimination positive su ñu nee dañuy jox exprimer trois millions ñu jox Casa quatre millions jox jox jox jox jox trois millions cinq cent jox Ndiambour trois millions parce que ñoom tam aller retour yooyu la ñuy dem mais équipe Dakar yi li ñuy am équipe région yi waruñu ko am waru quota bi waru ñu fi warul yem. d'accord mais on donne à trois millions. non su ñu dañu joxe millions Casa dañu war jox Njambur 3 millions 500 jox Linguère 3 millions 500 warul yem Linguère ak ak Njambur yëpp waruñu même même xaalis même même même montant ak les équipes de Dakar équipe Dakar dañuy jouer 5 6 match 10 match léeg-léeg ale bi yëpp du ñu gën mais arrêté la. <laughs> mais loolu Casa su loolu ko amoon. kenn du jël championnat chaque année on double. si loolu ñun la kenn du fi naan dara kenn du fi naanee ñeex. ak bu nekk on double tout kenn du fi naanee ñeex waaye il faut arrêter là. <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax coach euh, Demba Ramata Ndiaye ancien coach euh, du club Casa Sport également directeur technique euh, de ce club merci.